Bonjour, euh, c'est M. Ibrahim Ali. Je suis le PCA de la Fédération Pentium Dakarou. Euh, nous sommes ce matin à Guédiawaï, au centre sauvegarde de Pikine Guédiawaï, pour remettre un lot de matériel à, aux écoles de Guédiawaï. Donc, à l'IF de Guédiawaï, monsieur Mendy, à ma gauche, et M. Mbake qui est le président de l'association euh, partenaire local de Pencum Ndakaaru ak Guédiawaye donc euh, l'association de Guédiawaye donc ce matin on était venu pour remettre un certain nombre de lots aux écoles euh, d'abord un lot de euh, savon en liquide de savon et de matériel d'hygiène pour véritablement appuyer l'hygiène en milieu scolaire mais aussi nous avons remis euh, des rames de papier pour appuyer la qualité de l'enseignement, des enseignements apprentissages dans les écoles de Guédiawaï, notamment pour les évaluations standardisées. Mais aussi, nous avons remis un lot de serviettes hygiéniques pour la gestion de l'hygiène de des menstruations à l'école. Ce n'est qu'un début, parce que c'est juste pour soulager les lycées et collèges, ou bien les écoles, dans le cadre de la gestion des menstruations. Mais nous avons un programme ambitieux euh, de gestion de l'hygiène de la menstruation à l'école. Et nous allons commencer à Guédiawaye. Nous allons mettre dans un collège qui s'appelle le collège Darussalam des toilettes sensibles à la GHM, mais aussi un comité. Et ensuite viendra ces serviettes-là pour véritablement pouvoir véritablement gérer en fait euh, les menstrues à l'école. Donc globalement, Euh, voilà ce qui nous a réunis ce matin. Mais je voudrais euh, passer la parole au président de l'association de Guédiawaye qui représente la fédération Pentium Dakar ici, avant en tout cas de passer la parole à l'inspecteur qui véritablement est aujourd'hui le récipiendaire. Parce que Pentium Dakar travaille avec les IF qui, eux, à retour, euh, euh, en fait, dotent ces écoles-là de ces serviettes-là. Mais nous avons un protocole avec les IF. Nous faisons beaucoup de choses avec les IF euh, euh, dans le cadre de l'éducation et de la formation. Merci. Pourquoi nous avons ciblé Guédiawaye parce que l'ONG Pentium Dakarou est une fêtière de six associations. Dalifor, Camberen, Wakam, Yoff, Sebekhotan et Guédiawaye. Guédiawaye donc est un membre de l'ONG pencum Dakar mais aussi je l'ai dit dans l'entame de mon propos en tout cas les en fait euh, acteurs de Guédiawaye sont très proactifs les autorités déconcentrées les autorités décentralisées les autorités de l'école les les, les euh, au niveau communautaire ils sont véritablement ils répondent à chaque fois que pencum Dakar les sollicite et nous voulons du répondant c'est pourquoi vraiment on privilégie dans dans l'ensemble de ces associations nous privilégions l'association de Guédiawaye Est-ce que c'est la première édition ou bien le faire Bon, nous l'avons fait plusieurs fois. Donc pour les, pour les, pour les la GHM, ça fait la troisième ou la quatrième fois. Euh, pour euh, en matériel, pour ce qui les rames de papier, peut-être c'est depuis mais avant, de reprographie, on, a, on fait des Euh, encadrons les assistants communautaires dans le cadre de la remédiation on fait en tout cas un paquet de choses et on est en train de les faire depuis longtemps. man maa ngi tudd Mbacké Gueye euh, nekk président conseil d'administration bu association 1177 bu Guédiawaye bi nga xamante ne moo représenté fédération Pencum Ndakaaru fii ci localité bi. alors euh, tey li ñu fi dajale moo nekkoon ay dons yoo xamante dañ ko waroon jox écoles yi comme ni ngeen ko xamee fédération pencum Ndakaaru dafa yëngatu lu bëri ci wàllu njàng mooy lépp lu jëm ci wàllu éducation ak formation di ci liggéey ak inspection bi euh, lu ëpp juróom-ñetti at ñu ngi liggéey ci wàllu googu at mu jot nag dañuy dajale école yi jox leen lépp loo xamante ne mooy dellu ci ay kit d'hygiène bu ñu wax kit d'hygiène mooy lépp lu dellu ci wàllu madaar wàllu eau de javel wàllu grésil lépp loo xamante ne rek dafay yokk euh, hygiène bi dafay yokk cet ci biir école yi parce que ku ne xam na ne xale aussi buy jàng foo mu wér te pour mu wér il faut mu set loolu nag la ñu bëgg dimbalee école yi moo tax at mu jot ñu dajale lépp li nga xamante ne ñooy école yi nga xamante ne ñoo fi nekk ci gox bi nekk ay école partenaire nekk école primaire yu bëri ay nekk ay école préscolaire mais aussi onze collège yi nga xamante ne yëpp ñoom ñoo nekk fii ni bu Géejawaay fédération pencum Dakar chaque fois daf leen di jàppale ci kit d'hygiène yi mais au delà kit aussi lépp lu jëm ci ay feuilles parce que ku ne xam na ne ñoom dañ koy soxla lu bëri mais tam xale yi ngi jigéen ni nga xamante ne dañu tollu ci gis mbaax danañ leen di dimbalee ci ay serviettes hygiéniques loolu at yi yëpp ñu ngi koy def te loolu ëpp na juróom-ñetti at comme ni ma ko waxee sànq depuis 2017 ñu ngi liggéey ci loolu di jàppale école yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci niveau waay loolu nag bu ñu ko mënee fédération pencum Ndakaaru dafa jël euh, pàcc bu am solo ci financement wam ci budget jëmale ko ci wàllu Guédiawaye te loolu tam li ko yombal mooy autorités yi nekk fii ci Géejawaay moo xam préfet la moo xam inspecteur la te monsieur Mendy bi teewal ko fi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les acteurs de l'éducation taxawaay bi nga xamante ne ñi ngi koy def ci njàng mi mais mu feeñ aussi ci résultats yi xamante ne ñoom ñi ngi koy am at mu jot ci seen examen yi moo xam BFM e la moo xam entrée en sixième ñu ngi gis ay résultats yu am am solo moo tax ñuy sawar jamono bu nekk di leen jàppale ci liggéey boobu noonu gis ne nga jógee wax léegi ne ay service hygiénique mooy xale suñu rakk yi ñu ngi gis ñi commencé gis mbaa ñoom ñooy na si seen cours yu jël cours yoo xam ne leen pour ñu mën a xam ne ñu utiliser service lii di service hygiénique effectivement dafa am am na dispositif yoo xamante ne ci école yëpp dañ ko teg pour accompagner leen ci wàllu googu parce que loolu dafa am solo ci ñoom parce que bu ñu leen dimbalewul ci côté boobu rek mun na am lu mu yàq ci seen jàng ndax xañ na am na nu muy ñëwee noo xamante ne mën na leen jaaxal ba sax mun na jur ci ñoom kerse boo xamante ne danañu bu dana mun na leen empêcher ñuy ñëw école comme ni ñu ko bëggee moo tax yooyu yëpp am na accompagnement boo xamante ne école yi ñu ngi koy def direction école yi ñu ngi koy def ànd ko ak inspection bi loolu aussi euh, fédération bi am na ay jéego yu am solo yoo xamante ne mi ngi koy yokk ci côté boobu dem sax ba xalaat ay toilettes yoo xamante ne carrément pour loolu la fii Guédiawaye am nañ ci projet boobu ak pencum Ndakaaru liggéey bi incha allah balaa muy yàgg dina commencé pour que ñu mën a continuer jàppale xale yi pour dimbali leen ci ci côté boobu noonu. léegi lan mooy sa dernier mot de remerciement. waaw mais mais sant bu baax rek euh, fédération Pencum Dakar bi nga xamante ne ñun en tant que association bi nekk fii ci Géejawaay membre lañ ci ñu jël aussi lu am solo toujours chaque année ci budget bi di ko delloo ci biir Géejawaay donc loolu aussi ñun en tant que président de l'association maa ngi ñi ma àndal ñëpp ci liggéey bi ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci ñaanal aussi di sant aussi inspection bi nga xamante ne tey. bu ñu bëggee mënee bu ñu mënee dugg ci école yi mun fee def liggéey bu am solo bi loolu bu dul woon taxawaayu inspecteur bi nga xam mooy l' inspecteur Yaya Coly te inspecteur di représenté ko ci journée tey bi ñu ànd ko ak les principaux de collège ànd ko ak aussi les directeurs d' donc ñoom ñëpp aussi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu également seen taxawaay di ñaan yàlla aussi partenariat bi mu gën a continuer et puis xale yi di ci continuer di ci gis gis seen njëriñ. Euh, si si euh, monsieur Ly et monsieur Guèye. donc euh, qui n'ont ménagé aucun effort et qui continuent à le faire depuis euh, vraiment depuis si longtemps. Donc euh, de par leurs actions, euh, ils contribuent euh, grandement à booster euh, les performances des élèves parce qu'on sait que dans toutes les écoles, dans tous les établissements aussi, que ce soit les CM, les écoles élémentaires comme ça, donc les, parfois les enfants on, sont confrontés à certains problèmes, hein, notamment les, les filles, donc qui voient souvent le bon Euh, qui sont confrontés à des problèmes de règles Donc euh, il faut euh, vraiment qu'on leur vienne en aide. Mm. Bon, c'est ce qui explique la distribution des, des, des, des serviettes hygiéniques. il y a aussi le problème des, des devoirs. Parfois, les, les CM, surtout, ont des problèmes pour pouvoir faire des, des devoirs. Euh, parce que ces devoirs-là nécessitent beaucoup de, de, moyens, notamment les rames de papier Et c'est pourquoi aussi eux, ils leur viennent en aide bon, pour faciliter un peu le déroulement des, des enseignements apprentissage. En dehors de cela aussi, bon, véritablement, euh, je crois que euh, il euh, y a aussi les, les, les, les, les bouteilles, les bouteilles, euh, de madar comme ça. Donc vraiment, tout ça contribue à, à booster les performances des, des élèves. au niveau des, des examens, notamment le BFM, euh, le certificat de, euh, certificat de, euh, de e, certificat de fin d'études élémentaires pour les élèves de, de, l'école élémentaire. Donc c'est pourquoi aussi nous prions vraiment pour que cette, euh, euh, ce, ce, soutien continue, puisse s'établir dans la durée. Et nous prions aussi pour que Dieu vraiment leur donne les moyens, toujours les moyens euh, la santé aussi, de pouvoir pérenniser ces, ces, ces efforts vraiment euh, qui sont louables. Voilà de façon à ramasser euh, ce, qui, ce qui me tient à cœur. Et je, je remercie aussi encore une fois de plus euh, euh, euh, cette, cette, organisation, cette ONG, à travers ces, veillants donateurs hein, et qui, ont, qui, qui, qui, se sont saisis de leur, de leur partenaire pour nous venir en aide. Et M. aussi, vraiment, euh, je sais qu'il sera très content. parce que celui qui est ton, ton IF, ta scolaire, donc tu n'as la remercier et, et, pour lui. C'est pourquoi aussi, lui-même, il devrait venir. Mais au dernier moment, il a eu euh, un empêchement. Bon, parce qu'il il, il, m'a dit qu'il était souffrant. C'est pourquoi je suis venu. Et je saisis encore une fois de plus euh, cette opportunité pour remercier, euh, tous les principaux Euh, aussi, parce qu'ils sont venus massivement, tous les aussi qui sont parce que tout le monde est la conjugaison de tous ces efforts-là euh, qui va faire que, que, nous puissions vraiment avoir des résultats merci. merci Salam alaikum, euh, je suis Ibrahim Diop, du directeur école l'école Nyarkadjan, école élémentaire Nyarkadjan. waaw euh, tey nag euh, dañu fi dajale woon tey ci ndigalu suñu kilifa IEF euh, euh, Guédiawaye par la par une euh, convocation ci convocation pencum Ndakaaru pour jot ay don don hygiéniques ay don yi nga xam ne c'est destiné à nos élèves dons yi nga xam ne dafay jëm ci suñu élèves yi mu nekk ci ay saabu doon eau de javel doon serviette hygiénique euh, grésil vraiment un tas de l'eau bi nga xam ne euh, pencum Ndakaaru ak association bi mm, def na ko ah, ci suñu ci suñu école ñëw nañu ko appuyé wuñu ko des écoles ah loolu nag ñu doon euh, ñu ko ci remercier bu baax a baax parce que du doon guleet duñ na guleet voilà plus de man à ma connaissance cinq ans ñoom monsieur Fall ñi ngi may wax ñoom depuis sept ans euh, Pencum Ndakaaru mi ngi fii di leen accompagner dans ce sens la chaque année à pareil moment euh, Pencum Ndakaaru mi ngi ñuy dimbali ci wàllu hygiène et qui dit hygiène sur le plan scolaire vraiment su ñuy wax affaire hygiène ci wàllum école xam nañ ne balaa ngaa mën a euh, jàng jàng bu normal dinga nga set di nga set di nga di nga am di nga am wér-gu-yaram alors loolu la pencum ndakaaru xam ba ñëw nag di ñu ko appuyer ci wàllum aussi serviette hygiénique yi daf ñuy permettre aussi à travers nos leçons ñu inculquer euh, la le le cycle menstruel euh, l'éducation menstruelle ci suñu xale encore ci wàllum set setal bi aussi omo yeeg yooyu la lavage des mains vraiment mu nekk une chose importante bi nga xam ne ñu ngi koy dérouler dans nos écoles te loolu suñ ko amee vraiment c'est grâce à Pencum Ndakaru que nous félicitons nous félicitons véritablement nous ne cessons de féliciter et de remercier du ko ñaanal nag euh, accompagnement bi per nekk vraiment euh, pérenne quelque chose de pérenne euh, ñun xam nañu. commencé utile pour nous et pour nos enfants yàlla na yàlla kàttanal ba ñu ñu pérenniser toujours dans ce sens la et, et au service aussi des enfants service euh, pérenniser ce partenariat ce partenariat-là vraiment ñu ngi leen di remercier di leen gërëm bu baax a baax wasalaam. directrice école UNESCO amoon trois donc maa ngi bokk ci partenaire euh, école yi nekk partenaire avec Pencum Dakar. nga xam ne vraiment depuis que ma nekk UNESCO amoon fois trois ans ñu ngi ñuy woppi di recevoir ay kit hygiénique di recevoir ay madar eau javel savon donc lépp loo xam ne daal mu ngi agir ci école pour le bien-être xale bi donc waa Pencum ndakaar ñu ngi koy joxe dans les écoles de Guédiawaye mu leen ci jaajëfal bu bëree bëree bëri nga gis ne da nga wax léegi yow fu wàllum kii serviette hygiénique ban ban ban message nga lancé xale suñu rakk yi ñoom ñu war a utiliser serviette hygiénique xam ne léegi lañ commencé mhm. waaw service hygiénique nag boo ko gisee pencum Ndakaar sax di ko joxe si école yi parce que xale yi bu ñu gisoon mbaax dañ doon am problème di ñibbi seen kër yi wala bu ñu feebaree toog seen kër yi ndax day règle mais bu ñu ñëwee école service hygiénique yooyu permettre nañ leen. ñuy atteindre seen quantum horaire te duñu rate yenn cours yi parce que yow boo gisee mbaax à l'école dinañ la jox service hygiénique nga mën a changer te doo perdre sa heure nga changé dem duggaat sa euh, classe def tes cours convenablement donc là moom vraiment euh, dañ si atteindre objectif lu mucc ayib parce que dina tax xale bi quantum horaire am du wàññeeku te du impacté ci ay résultats yam est-ce que est que jël ngeen ay matuwaay pour mën leen permettre ngeen jàngal leen ni ñuy utiliser lii di serviette hygiénique. Euh, waaw parce que serviette hygiénique une fois que pencum Dakar jox ñu ko dans les écoles dañu jël ay maîtres maîtresses comme jigéen moo gën a jege élèves yi. Mhm. ñu regrouper leen dans une salle de classe ñi nga xam ne jot ñu seen période ñu sensibiliser leen wax leen njëriñu serviette hygiénique naka lañ koy jëlee. ak noo koy defee ak ban waxtu nga ko war a utiliser ban waxtu nga war a def rechange bi su ko defee xale bi li mu soxla si serviette hygiénique nga jox ko ko en un temps boo xam ne serviette hygiénique boobu da nga ko war a changer aussi xale bi bu ñëwaatee da nga koy jox beneen serviette hygiénique mu échanger voilà vraiment sauvegarder bien-être xale bi la. ok merci donc ñun ñoom du ñu cesser di remercier Pencum Ndakaaru fois. am na commencement mais amul fin parce que dañ di ñoo xam ne wax dëgg dañuy œuvrer pour les résultats scolaires boo gisee tey géejawaay ñëw à ce taux de réussite aux examens scolaires pencum Dakar da cee am wàll ndaxte dinañu accompagner ci ay risographie dañuy accompagner ci ay photocopieuses dañuy accompagner ci des rames de papier ensuite des cours de renforcement dans certaines écoles ñuy ñaan nag nañ ko yaatal parce que école yëpp a ko soxla donc ñu ngi leen di ñaanal xaalis bi gën a bëri jumtukaay yi gën a bëri ba yeneen école yi mën si bénéficier wu comme yenn écoles yi ni si siy bénéficier woo jërëjëf pencum Ndakaar gàcce ngaalaama ci kaw ci kanam.